bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa qaala isa ibnu maryama allahuma rabbana anzil alayna maidatan min alsamaai takun lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan minka warzuqna wa anta xayru raasiqiin kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasiratan bi isnillahi wallahu maa saabiriin ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di ko tàmbalee ci suñu mag suñu sëriñ di Cheikh Tahirou Fall ak maam drame ñu doon yëkkati kàddu léegi ak euh, mbooleem kilifa yi fi teew yëpp muy Nuurullah ak mbooleem ñu fi teew ñëpp rek damay bañ lim bi di jël temps bi di nuyu bu baax itam kilifay diine yépp ak fu ñu mën a nekk ci biir senegal di ko tàmbalee ci suñu kilifa bopp Cheikh Mouhamadul Muntaxa di xalifa général de Mouride di ci teg Serigne Babacar Sy Mansour di xalifa Tiwaaw ca di ci teg Cheikh Mahi Ibrahima Niass di xalifa Medina Baye ak Serigne Cheikh Tidiane Oumayma di xalifa na ak mbooleem këri diine yi ci des yépp su ma tuddee yooyu rek yóbbaale naa ñëpp li tax ñu jiital leen ci nuyoo yi nag mooy lii ñuy def ñoom lañ koy defal ndax li ñuy def ak li ñu woote mooy li nga xam ne ñoom ñoo ñu ko jàngal ñoom ñoo ñu ci yar ñoom ñoo ñu ci tàggat ba noppi di ñu ci xaar suñ dajale woon fii tey mu nekk conférence de presse boo xam ne am mbërum làmb la ñuy jàppale wala kuy wuti musique di def disque d'or wala yu mel noonu. suñ kilifa yooyee ca Touba ak Tiwaawoon ku ko ci dégg dinga rus lool parce que da ngay xam ni Cheikh Tahirou ak Imam Darame kat xaaruñu leen woon fii waaye fii ñu toog nag tey sikk sàkk nekkul ci ne dëgg rek moo tax ñu toog fi ak bëgg jàmmi réew mi ak bëgg développement réew mi te loolu dara mënu ko doxal lu dul réew mi nekk ci dëgg dëgg googu nag lu dëggug ma sàmba du dëggug ma demba waaye dëggug yàlla la di loo wax xàtt nag di lu metti muy dox ci dëgg bariloo mën a perte bari loo mën a ñàkk bariloo loo nangoo muñ pour nga mën a tax saxaw taxaw ci dëgg kii ñu fi dajale nag muy président Ousmane Sonko yàlla de moo xam ku jub yàlla moo xam ku nekk ci dëgg waaye mboolem jumtukaay yi jaam mën a jëfandikoo ngir am yaqiin wala am yaakaar ci ne kii ku jub ku sax ci dëgg la jumtukaay yooyu yépp ku ko ci natt da nga fekk ne da ko am ci moom cent pour cent kon jàpp nañ ne wuute wut ak dëgg gi moo tax ñun nanguwuñoo wute ak moom ndax pare wuñoo wute ak dëgg ñun bu neexee dëgg lañuy àndal bu naqaree dëgg lañuy àndal ñi wuteeg dëgg sax saa bu ñu leen laajee yéen li ngeen nekk dañuy wax ne ñun kat wuute wuñu ak dëgg ndax ku ne gis na agence judiciaire de l'État keroog bi mu defee benn euh, interview ci kanamu juge bi dafa wax ne Sénégal de état de droit la ñun Sénégal ci dëgg dong lañ nekk duñ jaay kenn doole amuñu sax ay détenus politique nga xam ne saal bi sax dañu doon reetaan parce que moom ci boppam xam na ne lii muy wax maanaam safaanub dëgg la waaye dëgg mooy loo xam ne saa yoo ko bàyyee tamit mu dem. saa bu ñu la laajee ndax yaa ngi dëgg doone nekkatuma ak dëgg même président Macky sàll soo ko laajoon day wax ne man maa nekk ci dëgg waaye nanguwul a bàyyi dëgg ba noppi assumé ne bàyyi naa dëgg kon dëgg rek mooy dëgg dëgg rek moo jara wut dëgg rek moo jara àndal loolu nag moo tax ñu teew fii tey ci biir dëgg googu ñuy wut nag ak li ko wër daf cee am loo xam ne moom lañ ñuy xaare muy gindi doomu aadama yi waaye di leen gindi ci dëgg ak woo leen te woo leen ci dëgg ku gis suñu toogaay bi tey di nga xam ne bu dul effectivement la 17 bi am muy ñaari atte yi am ci diggante CEDEAO ak diggante atte CEDEAO bi nga xam ne CEDEAO mooy atte Sénégal ak Ousmane Sonko ci ay mbir yu bari yuñ jàpp ne ay tooñ la bañ yóbbu ci kanamu cour boobu pour mu atte ñu ak kalaame boo xam ne état senegal ci boppam moo def kalaame ci cour suprême ci candidature Ousmane Sonko ngir wax ne daf koo bëgg a génnee ci list bi loolu nag nekk mbir mu garaaw moo xam ne ñaar moo ci am mooy nan ñaan ci yàlla loolu ba ñu am mukk ci kaw suuf waaye itam dolliwaat xamal nit ñi loolu ñuy bëgg a def lan la bañ man koo ba jaral leen ñu woor jaral leen wérd jaral leen sàkk sarax pour loolu bañ a am parce tey jii bépp télé bu ñu fekkoon muy tàkk ci réew mi ñu ne télé bii kat dañ koy fay weer comme ni ñu defoon groupe Walfadjri xëy na sax mënees na ko toloree wala mënees na ko ñàkk a waaye bu ñu ne woon télé bii de danañ ko fay ba yowmal xayaamatil bar télé bi dootul tàkk danañ xam ne ah loolu kat lu garaaw la kon balaa ñu koo def nañ ko seet ñu seetaat ku ñu fekkoon fii ci caméraman yi na la bés na ka tey dootoo caméra li des ci sa àdduna dana nekk mbir mu diis mu ñu teg ci sa kaw. commerçant bu ñu ko defoon dana diis ci yow imam bu ñu ne woon yow li des ci sa àdduna dootoo taxaw ci minbar di jiite dana diis ci yow Ousmane Sonko nag liggéeyam moo nekkoon liggéey ci euh, euh, nu mu tuddati impôt et domaine la nekkoon inspecteur ginnaaw état Sénégal dogal na ko de li des ci sa dund dootoo nekk inspecteur u impôt raje ko ci mu bàyyi fa lépp jël liggéeyam def ko muy politique polotik nag. falu la ak fale lii ñuy wuti mooy ginnaaw suba état du Sénégal li muy sàkku ci Cour suprême mooy li des ci noyyi usman Sonko ci àdduna bu mu mën a fal nit te bu mën a falooti loolu nag benn waay bu mel ne tey Paye Assane Mesere mee toog ku ko defoon loolu nga xam ne maanaam da da ne ah yow kat da ngay te kenn gëmu la sax suñ ne woon dañ lay raja ba dootoo mën a fal nit dootoo mën a falu war na war na Sénégal yëpp ñu taxaw. ba loolu même bu fekkee lu mënta ñàkk am la na nekk ci dëgg gu leer nañ te nga xam ne lii rek moo fi mën a am parce que tey nit ki ñu yaakaaru fukki at yii ci kanam mën naa am sax am ñu ko yaakaar tey xam ngeen ne Ousmane Sonko bu caaxaan jeexee dëgg des amul lenn lu nekk ci gannaaw bëgg a dindi googu ci ginnaaw kii bi lu dul xam ne askanu Sénégal dañ koo bëgg dañ koo yaakaar nit nag boo demee bay tas yaakaari jàmm ñi war nga koo teg ci ay baas yu leer. loolu nag moo tax ñu bëgg a leeral Sénégalais yi ñu xam ne li ñuy defi mooy état bi moom dafa sàkku ci cour bi ne ko jëleel ma usmaan Sonko ci dootu falu li des ci àddunaam waaye dootu mën a fal ak nit li des ci àddunaam loolu nag xam ngeen mbir mu garaaw la moo xam ne jàppoon nañ ne sax Sénégal moom wërta àgg foofu bay tëgg loi sax bu mën a def loolu doomu aadama waxuma laag nag fekk koo xam ne wóor na ne le loi bii dalul ci kawam mere ko ak ragal ko ci wàllu élection rek tax nga bëgg a jël loi boo xam ne moom moomul loi bi nga teg ko ci kaw te bërki démb kat daf ñoo joxoñoon Karim Wade nañu sàcc la sàcckatu muket sax sàcc nañ ko sàcc nañ lu ne trian nañ fépp ba mu neex leen ñu jëlaat Khalifa Sall ne moom itam ab sàcc la sàcc nañ milliard nangu wërta jiite dara ci dëkk bi moom itam dox ba yàgg état boobu tey waññi ko waat ne euh, Khalifa Sall ak Karim Wade mii nga xam ne maa waxoon ne dañuy sàcc ak dañuy tappale génn naa ca la ma waxoon léegi nag nañ amaat sañ-sañu bi nga xam ne ku sàccu te koy am nañ amaat sañ-sañu bi nga xam ne ku triyaaniwu te koy am kon état bi diggante booba ñun ñëpp ñu ngi dund fi kenn deewu fi ndegam moo mën a jël Karim Wade ak Khalifa Sall ba mu neex ko mu xëy ne la ma waxoon ci ñoom dara amu ci maa ci dellu gannaaw su bëggee songaat keneen même bu fekkoon te ne daanu rëkk wax dëgg sax war nañoo teew ci ka ci ay yëfam ndax day mel ne day wax tey weddi suba noonu la état bi doxale léegi nag ñun ñi nga xam ne ay sëriñu daara lañ ak ñun ñi nga xam ne ay imaam yi jàkka lañ ak i jumaa ak ñi nga xam ne ay ustaas lañ wala ay gindikat lañ ay yeetekat lañ ak ñi nga xam ne sax dañoo def seenu cër ci àdduna muy toog yor seen kurus di ñaan ci yàlla ñooñu la ñuy woo woote bi nag du dañ leen a woo ñoom génnee ci citoyen lamdaar yi ndax ñëpp la yàllaa leen bokk bind te effort bi mu def ci imam bi moom la def ci caméraman bii pour mu judd kenn ku nekk nag la nga nekk yàllaa ko sàkk mu xalal law yoon ñu bëgg a doole boole dooley askan wi ñi nga xam ne jàpp nañ ne lii Ousmane Sonko di dund teguwul ci dëgg te teg na ci ak tooñaange képp koo xam ne jàpp nga ne loolu kat maanaam amul dëgg lenn lu ciy ceslaayul dëgg lu nekk ci lii ñu koy teg dañoo bëgg ñu ànd bokkuñ ñaan yàlla suñ borom subhanahu wa taala mu àtteel ñu dëgg ba Ousmane Sonko mbooleem pexe ak lu ñuy jéem ci kawam loo xam ne dëppoowul a dëgg yàlla bu mu ànd ndax ku wax mu yegg nag yàlla la neex te bu kenn wóolatut yàlla ñun de wóolu nañ yàlla bu kenn doylootut yàlla ñun doyloo nañ ko bu ñëpp sànnee yàlla ànduñoo moom it ñun sànni ko ànd nañoo ak moom wóoluwuñ doole kenn ku dul doole yàlla subhanahu wa taala bëgg nañ yàlla mi nga xam ne mooy attekat bu mag bi mu atteel ñu dëgg ba Ousmane Sonko ñaar yi ñu war a atte ci moom benn bu ci nekk mu am ca ndam lu rëy lu ñëpp siggi képp ku koy bañ tamit bis booba na nekk bis buy tàng sa xol te doo ca am doo ca am mbégte di ci ñaan tamit loolu bu yàggul rek am na ñu gisoon defoon naa ko sama biir kër ci yëg-yëg rek laa ko def woon waaye nag bii yoon mbokk yëpp a ko yëgandoo ñu yëg ne 46 département yëpp am nay daaray alxuraan. am nay soppee Ousmane Sonko am nay sëriñu daara am nay imam ñu bëgg boole dawla yi 46 département yépp lu ko tàmbali suba àllarba alxames ba ajjuma jooju ñu def ko bisi ñaan waaye rawatina nag alxames gi ndax kenn ku ne mën ngaa beru ca sam néeg te yaakaar naa ne ku nekk ci ñun yaa ngi beru di ko ñaanal waaye jàpp naa ne julli beru dem ci mbooloo mi julli la yàlla gën a bëgg kon ñaan beru dajaloo ci mbooloo ñaan mooy li yàlla gën a bëgg ci biir daara ci biir jumaa yi képp koo xam ne da ngaa nekk Casamance nga am yëg-yëgu ne lii de man ñii ñii di wax nii kat maa ñoo ma bokk yëg-yëg am na numéro yoo xam ne danañ ko publier wala sëñ Mansour dana ko joxe su ko defee nga ne man de maa ngi Casamance danañ la wax ka ñu nekkal Casamance ak waa Casamance bu ñu ko bëggee def fan la ñuy daje. ku nekk Louga bu yëgloo ci numéro yi danañ ko ne Louga kat kii yu fa nekk bis nangam la heure nangam la alxames la gannaaw takkusaan comme waxtu wii bu ñu jullee tàkkusaan ca la ñuy nekk ba tisbaar ba ba timis ba gannaaw timis lépp nag loo xam ne dañ koy ñaana yàlla rek mën nañoo dajaloo def ko muy jàng ay yaasin jàng mu miitu tabat xul ya euh, euh, lixlaas jàng alxuraan ba mat ismul jalaal bax baxaa latiif bàyyiwuñ dara lépp loo xam ne ba ci sayfiyu lépp loo xam ne daal am na cëslaay ci alxuraan ak sunna te man te yàlla ne jaar leen ca ñaan ma ma ma ma may leen bañuñu ku ca woote te ñaan ca li ñuy defit menacé wuñ kenn ndax mën naa am sax lii ñu yëg juge yi war a atte yëg nañ kon ñu ne dañoo woote pour dal ci kaw benn politicien ñaan ko mu dee wala dañuy dal ci kaw benn juge ñaan ko mu dee dëgg daal yàllaa ko moom te mooy alal yàlla képp ku bëgg a taxaw xeex dëggu yàlla gi yàlla boo jariñoo la tax nga koy xeex su fekkee dañ laa ger ngir nga xeex ko lañ la gere yàlla bu mu dem sa biir yàlla na ko yàlla boo ko jariñoo bu fekkee danga nga koo def dañ laa woo wax ne nëbbal dëgg ngir nekkat kat da nga am wàccuwaay sàngam maanaam danañ la fal poste sàngam wala danañ la yéegee maqaama sàngam soo nëbbee dëgg gi poste boobee bu yàlla bu ci saw sawtaat dëju barke alxuraan te bu amee ba noppi maanaam saa bu nit toogee làq dëggu yàlla googu xeex ko ba tas yaakaaru askan bis boobee yàlla na nekk sag wëlbatiku di deltu gannaaw yaag sag njaboot ba mujj nekk ku kenn dul tuddati ci kaw suuf ba asamaan ak suuf raafal la ñi ngi koy ñaan yàlla mi nga xam ne am na kàttan gi am na sañ-sañ bi am na man-man ndax dëgg kat ku ne ko sañ a nëbbu ba mu des ab juge yàlla subhanahu wa taala li muy kawe kawe ak li muy moom moom nit ñi d'accord na moom yàlla nekk ab juge toog atte parce que dafa dafa jàpp ne yàlla ci boppam dafa jàpp ne ñaar rek moo tax nit war a atte mooy xam dëgg ba noppi nangu ko atte maanaam nangoo teg dëgg saa bu nit amee ñaar yii rek ku jekk la ci atte mooy xam dëgg tey jii ku ma yóbbu woon ci attekaay ba mën naa am nit di wax loo xam ne du dëgg ñàkku ñàkk gu ma ñàkk xam looy réew mi dana tax du ma xam ba xam kii wax na dëgg wala waxul dëgg kon li jiitu ci attekat mooy na xam dëgg waaye ñaareel ba ca des ma xam ne mooy tax yàlla sax nangoo bokk ci mbir mi mooy nangu dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy gën gën nit ñi nangu na nekk attekat mooy toog ñaari nit jote mu atte kon keneen koo xam ne soobu nga ci yoon ba yàlla def la ab àttekat bokk nga ak yàlla ab ab ab ab sées booy toog bokk nga ak yonent bi sées booy toog képp nag koo xam ne da ngaa foyee dëgg lu la yàlla teg jëlal àttekat yi nag jàpp naa ne ah amul lu ñu leen di wax ñoom xam nañ seen liggéey waaye nañu xam ne rek Ousmane Sonko lépp lu nit di jël di ko teg ci kawam na ko nat na xam ne loo ko def def nga ko waa réew mépp noonu la deme ndax moom li mu nekk ndimbalul yàlla subhaanahu wa taala dong nga ko ci fekk bërki démb Macky Sall mii mu seqal wax ji taxaw na ca ca ca ca euh, Kaffrine gii matul ñetti at ci gannaaw wax ne nit koo xam ne sa politique yëpp mooy topp internet bi di commentaire di kacc kacc yaakaar ne yaa moom réew mi ba election ya di nga xam ne amoo dara Macky Sall moo ko waxoon Sonko bu ñu demee tey ba élection yooyu mu ko woon nañ ca dem tey mu taxaw tax kàndang kanaare ne ko du ma dem ak yow élection war nañoo wax diggante bi lu fi soppiku ba mu tënku woon ko ne ko nañ dem élection tey nanguwut a dem ak moom élection kon lépp loo xam ne day suuxal doomu aadama baa mu koy suul baa mu koy tax nit ñi fàtte ko rek rek nañ ko Ousmane Sonko te teewul yàlla mi nga xam ne moo bind te moom kattan moo ko téyal boppam bokk na ci nag li tax suñu xel dal mooy ñii fi toog kenn koo ci mën a woo ci aw fen mu wuy see la amut kenn koo ci mën a fay mu lay waxal amut sëñ taahiru mii ba ci imaam Mustafa sëñ Dramé maneen mi nekk parcelle euh, imaam euh, sëñ Pa Dramé ba ci Ibrahima Dramé ba ci imaam Dramé mii toog ak mbooleem ñi nga xam ne dañoo nekk ci euh, ñiti daara yi ak imaam yeeg ñëpp bi Abdou Diouf di ne fii fii la leen fekkoon mosu leen a jaral dugal ci seen làmmiñ mosu leen a jaral dugal ci seen image bi fi Abdoulaye Wade yi nekk fii la leen fekkoon mosuñu cee gis lu leen jaral dugal seen làmmiñ mosuñoo gis lu leen jaral dugal seen kàddu wala seen image ak ci feeñ tey bu ñu demee ba mbirum Ousmane Sonko xàmmeetuñu kuy politicien xàmmeetuñu ab ab ab ab muudu muudu buy wut liggéey bu nekk bitim réew xàmmeetuñ ab journaliste xàmmeetuñ sëriñu tariixa xàmmeetuñ ibaadu xàmmeetuñ tiijaan xàmmeetuñ murit ñëpp booloo am benn bëgg-bëgg am genn yëg-yëg mooy jël Ousmane Sonko teg ko ci bopp senegal jàpp ne loola dana jëriñ réew mi képp koo xam ne da ngaa bëgg a taxaw ngir salteel loolu na nga xam bu baax nga jël say responsabilité xam na am nga affaire ak ku ne loolu na nga ko xam am nga affaire ak ku ne te billaahi la si laa ilaha illa huwa xeex bii ngeen di xeex Sonko du ngeen ci am ndam ci saahir du ngeen ci am ndam ci baatin billaahi la si loolu moom mën nañ koo waat ci yàlla mën koo waat ci alxuraan ndax xam nañ li topp Sonko bu doon ay caaxaan baa ak fen du ko duñ ko topp te mësuma fàttaliku ci histoire àdduna fu yàlla dajalee ay ndaw yaakaar loo leen dara ba noppi tas yaakaar ja loolu musta am te lii nag yaakaar yi ndaw ñi la yaakaar yi góor ñi la yaakaar yi jigéen ñi la yaakaar yi sëriñ si la yaakaar yi nit ñi jàpp ci ñoom jub képp koo ci waxtaanal ci biir lu nekk dana la la Sonko nekk sama biir xol loolu nag du organisation kenn du lu kenn yi may kenn bu doon bayre bu ñuy sangoo ñoo ko koy njëkk a doon ñaan gu ñuy ñaan ñoo ko koy njëkk lu yàlla subhaanahu wa taala di def ci téeméeri at yu ko neex wala ñaar téeméeri at yu ko neex mu sàkk ab jaam def ca moom la ko soob yàlla moo jël def defam def ko ci Ousmane Sonko yàlla nag ba mu jëlee la muy def ci Ousmane Sonko ba mu jëlee la muy jël def ko ca eh, yonent yàlla Muhammad téewut daa jël abo la abo abo lahab teg ko ca wet ga ba mu la muy jël def ko ci Moussa daa jël Firawna teg ca wet ga kon jël li muy jël teg ko ci kaw Ousmane Sonko du teree am ñoo xam ne seen xol lëndëm na seenu fit dëgër na réer nañ yàlla bañ nañ lu baax ñu jàkkaarloo moom ne ko mbir mi du fi amee du caagi ne Ousmane Sonko dafa dem ci kaso bi mook ñoom Bassirou Diomaye fay kon ah yéen ko nangam nangam yonente yàlla Muhammad mat Makka la juddoo gën a bëgg Makka fépp te daa dem ba xat-xat jëlee ko Makka dem waaye tréewut ba muy demit la yàlla bëggoon ci moom génn Makka ak toog Makka ci yam am na Cheikh Amadou Bamba xaadimal Moustapha dafa sanc Touba mu gënal ko fépp ci kaw suuf xat-xat yi àdduna tax na jëlee nañ ko fi ba génnee ko réew mi te ci réew lam doon samp xëy na samp ba tey dara fayu ko kon Ousmane Nelson Mandela bu ñu ko jëlee jël maxat Mahatma Gandhi jël ñoom euh, ayatulaay Khomeini amul benn nit boo xam ne da ngaa woote dëgg dëgg ga sedd ci say loxo ba nga xëy réaliser ko toog amoo ci benn problème loolu mës mësta am ku sañoon nag Ousmane ko du dem kaso ku sañoon kenn du tas parteem ku sañoon kenn du ko def lenn lu ko naqari ndax nit doo ko bëgg ba noppi di ko yéene musiba waaye nag amul benn nit boo xam ne mas ngaa woote lu Ousmane Sonko woote ba noppi maanaam amul benn jafe-jafe boo xam ne bu ñuy nettali sa histoire danañ ne histoire bi kat jafe-jafe yaa ngi nii Ayatollah Khomeini liñ ko arrêté arrêté wuñ ko Sonko liñ ko teg teguñ ko Sonko te mujj naa mujj naa not not ñooña ba not tubaab yi